ba ci banaana ñu jaaxale ko ci orange papaye ak li ni mel maanaam fruit yi yépp ñu ngi fii ci rue Sandiniéry waaye nag ñii di jaaykat yi gis gisaguñu seen bopp bu baax jamono jile ñoom nag ñuy xam ne ni que yi bëriwuñu te nag njëg yi dafa daal di yéeg. Ah, njaayam fruit bi actuellement ci jamono bi doxul semaine bi moom sonn nañ loolu njëg yi tamit dafa yokk actuellement nii depuis julli ji passé fruit bi dafa yokk actuellement nii fruit bi bariwul. yokku na te doxut. non maa koy mu a yomb yàgg na te carton dafa cher ay carton ci kaw. jamono ji nag mango moo gën a fees ci marché bi fi nga xamante ne banaan dafa xaw a manqué. mango la moo mango moo dominé du Dakar bii la manqué lii doo ñëw moo wàññeeku léegi du kee noonu. juróom conteneur yi bu doon ñëw pour Sida léegi ñetti conteneur yi ñaari conteneur mooy ñëw. comme ni ko yeneen commerçant si biir Ndakaaru di ko dundee ñi ñu fekk foofee ci rue Sandiniéry itam ñoo ngay jànkonteel jafe-jafe déguerpissement bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko si biir capitale bi si fan yi ñu nekk mu nekk ab situation bi nga xamante ne daal na gàllankoor. seenub liggéey. non actuellement ni Sandingheer moom jafe-jafe la ñuy dund jafe-jafe jafe bu métti da dangay xëy di dax ak ramaat ba suba ba ngoon noonu ngay ñibbee ak loxo nen. bu deesoon si ñàkk marchement bi rek duñu am benn problème dañuy xam ne dañ koy jàppee noonu rek comme pour moom léegi-léeg mu dox léegi-léeg marché boo gis noon la léegi-léeg day dox léegi-léeg mu taxaw. mais actuellement nii mun nañ ne ramage bi mooy ñu sonal. ci seen wàll ñii di clients yi ñoo ngay ñaxtu chertéew njëgu fruits yi te nag ñuy woo ñii di njit yi ñu xoolaat rekk prix yi comme niñ ko defee ak yeneen denrée yi.